Allah Mokki Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. gannaaw bi mu amale jongante bi mu baxo def at mu nek tuddé ko yatal mbindum alquran compagnie Serigne Seck Sénégal 3 s mi ngi len di yeugal ne dina amal bes bi jap jàpp ngir joxé neexal yi jagleel ko ñett ñi jitu ci jongante bi muy dëppoog ñaarelu dibeer ci wéru koor gi di tollok dimanche ñaari fan ci wéru avril 2023 ci grand théâtre bu Dakar boobule bes nak c'est 3 s mi ngi ko tuddé Serigne Makhtar Khady ragné kon lol ci yare ak jàngale alquranul karim nekkon ku ku lol ci tollu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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما أنت بنعمة ربك بمجنود السلام عليكم ورحمة الله إن بكي سفو سنشان بي دي خمس مريو تي في دل سواتنا دلن نيو دلن زيارة muy bokk yi nekk ci biir réew mi ak bokk yi nekk bitim réew tey ànd ak ñun ci xam sam réew TV di nuyu kippaango yi muy ñiy safoo xam sam réew ak support xam sam réew di nuyu waa sàmm sunu mbatit di ko jébbal sa wolof sëñ Ablaye Cissé waaye nuyoo bi jëm ci cosaanu Sénégal it dañ koy jébbal Baye Cheikh Awa Balla Gaye ngir mu jottali nu ko bokk yépp di nuyu saa njañ sa yi ànd ak noonu ak fu ñu mën di nekk moo xam ci biir réew mi la wala bitim réew am mbégte ci ñoom lool di ziare Serigne Abdou Aziz Touré mbokk yi ngir ñew ci juróom-ñaareelu pàcc bi ni ma leen ko digee woon damay ñëw ak yéen ci gouverneur bi nga xamante ni bii moo sëriñ bi yóbbu ko gabon muy ku ñuy wax Luis guliom mute te mu juddoo ca Marseille juróom benn fan ci weeru octobre atum junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar

ci la ñu fal Félix Faure defoon ko sous secrétaire d'État moom moomu nag di Félix Faure at moomu mu falo doon sous secrétaire d'État Louis Guillaume Mouty mi ab fonctionnaire la woon waaye am na tojanga wu mu defoon France ba tax ñu indi woon ko Sénégal ci at moomu di 1887 doon na leen ko junju waaye ku ñuy wax Gabriel xanutu moom mooy nettali ndax lii moo ko doon doxal mute ci document bi ci archive bi nee na mute fi mu doon liggéeyee muy dalub cercle seeju cercle am na lu ko fa daloon te moo doon nekkoon ak jigéen ci biroom ñuy def la ñuy def mu dégg ab chefam di ñëw xamut nu muy def ndaw si armoire ba fa newoon ci la dugal ndaw si te armoire ba mujj daanu ànd ak ndaw si loola doonoon xew-xew bopp li tubaab di wax scandale bu rëy rëy ñu di ko coow bu jële fa muté Gabriel Hanato mii di nettali nag nee na man maa dem ci Félix Faure booba sous-secrétaire d'État la des colonies ngir ñu wutal mute am xëy moo xamante dana sori Paris gi nga xamante ni fi la defe tojaanga wi nee bi ma ko waxee Félix Faure dafa ma tontu ni ma dafa ma proposé ni benn possibilité de am na fi muy benn post waaye ma nga au diable fu sore sore sore la nekk ma nga ca sur le haut ci réew moo xamante ni bii daanaka dañ fay dog a dugg amul am koom amul sécurité ay jësik moo fa am ak ngas li ñuy wax fièvre jaune su fekkente ni poste boobu baax na ngir euh, mute mën naa ko ko jox Gabriel nee na ma daal di delluwaat ci mute daal di koy wax lépp li ma Félix Faure waxoon muy la distance di soriwaay bi ak ñàkk kaaraange gi muy la sécurité ak jësig yi mu wax ni moo fa am les caïmans ak woppi peste ak fièvre jaune ba mu wax ni moo fa am waaye nee na bu ma ci wax mute rek daf naan ma loolu garawut loolu du dara ça ne ndax man Marseille laa dëkk te fièvre jaune ba am na fa Marseille laa dëkk ay jësiga nga fa Marseille laa dëkk yi nga wax yépp am na fa man daal li mu bëgg mooy génn France kon Félix Faure poste boobee daal dina koy jox mute ngir mu daw génn France ba ñu fàtte toj tojaange tojaange yooyu mu fi def ñu daal di koy jël indi ko senegal bi mu ñëwee ñu am am xëy muñ ko wutal ci senegal gi nga xamante ni sore naag Paris lool te ñu xamaloon ko ni ko lii ak lii ak lii moo fa nekk waaye moom yooyu yëpp gisu ko woon dañu nañ ma jox rek ma dem man daal fu ma am fudul France rek baax na ci noonu lañ ko jox place boo xamante ni bii moo doon chef de bureau de deuxième classe loolu ci atum 1887 la mu def fi 87 88 89 nga xamanteni toj-toj ya mu France faté nañ ko ci lañu ko dello France bi mu demé France Félix Faure xam na ko ndax moo ko indi Sénégal moom def fi ñaari at bi nga xamante ni Félix Faure fàllu na nag te ni ma leen ko waxee woon créé woon awf ci décret boobu doon ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin te sos awf ci la ko président Félix Faure léegi dootul sous secrétaire d'État daal di koy investir def ko gouverneur du Sénégal lieutenant Chaudié mu def ko gouverneur u AOF waaye comme Chaudié ñëwul woon cumulativement ci la muté boole fonction yi gouverneur u Sénégal ak gouverneur AWF. AOF mooy gouverneur bi convoqué woon serigne si Ndar sëriñ si nekkoon ci juroom ñetti colonie yépp te ba ñëwé mu tégal leen charte ya xew France te moy laïcité bi rek ni leen nak dama bëgg ngeen signal ma lii ni ànd ngeen ci sëriñ sa gàntal ndax leeraloon nañ leen ni leen looy day may jigéen mu sañu nekk ci mbedd di jaay boppam loi bi day saña joxe li wax débit de boisson autorisation ngir ñuy jaay sàngara yooyu yëpp daal la ñu bëggoon a daganal ci colonie yi ci AOF bi nga xamante ni sëriñ si nee nañu kat ñoom lii dëppoowul ak seen diine di l'islam kon ñoom duñu ko euh, signé ci noonu nag ci la leen xamal ni leen buggeen ko signé wul day man am naa ay gaynde yoo xamante ni bii ñu ngi fii ñuy wax euh, jardin des say ay gaynde lañ yoo xamante ni bii ah benn di ngeen signé mbaama boole leen ak gaynde yi te ci seen kaaf yi te gaynde yu xiif lañu ci loola ci la sëriñ si xam leen ni kat sunu borom moo leen gën a jege seen xol yi ñoom nañu signé ngir bañ a faatu bu ñu signéwul dañoo xaru te bu ñu delloo wéyal seen lislaam ba ñu signé mu te bàyyi leen ñu dem waaye woote boobu mu doon woote Serigne Touba wuy siwul ndax moom jotul woon convocation ña ko noonu woon ca ndorte la ko ci Clément Thomas ñoom ñooy fexe ba convocation bu ñu jox ngir sëriñ bi ñu gàllankoor ko ba sëriñ bi lu ca jot ña nga naan gouverneur waxoon nañ la ni day sëriñ sëpp man nañ la wuy si waaye Ahmadou Bamba moom du ñëw te lan la waxoon gis nga ko te fekk na ñoom ñoo nëbbu convocation yi gouverneur Mouté daal di mer daldi di woo commandant Ndar l'administrateur de Saint-Louis ndax xam ngeen ni Ndar dafa amoon gouverneur am commandant ba fi ñu toll boo demee gouvernance nga fa waaye préfecture mu nga fa day am gouverneur waaye day am préfet l'administrateur boobee doon Leclerc nag moom la mu jox ndigal ni ko demal jëli Ahmadu Bamba Mbàkke Bari jox ko ay soldaar mu bàyyi ko Ndar benn fan ci weeru août ñëw Louga soldaar yi nga xamante ni nattu ngoom ya nekkoon Kees Ndakaaru ak Gore yónnee nañ ko ko mu dajale leen réceptionné leen daal di dellu ndar rendre compte waaye sëriñ bi bi mu yëgee ni gouverneur mer na ci te moom jotut convocation ca la yebal borom daarul muxti jox ko leetar ngir mu jox ko mute waxoon naa leen ni jëfi mute ju bon ji sëñ mu Ka tënk na ko ci la doon yéene mute ak la mu naroon ndax ba borom Daaru Muxti demee Ndar jox ko leetar ba sëñ mu Ka nee na borom Daaru Muxti ba mu demee Ndar noon ba yër leetar ba naa leen garab wàngaas ba mooy butam ba danaa folet bànqaas yi dejji buut ba sànni ca àll ba tasaare tool ba garab gi mooy yoonu murit moom ay pexe mooy dana tasaare yoonu murit dana fexe ba taalub sëriñ bi du fi tàkke moom na sëñ mu Ka di junju ci bayit yooyu ba borom daaru mu deme wax ko li xew ci la wax ka mu yebaloon ni ko toogal foofu ba ëllëg ca tisbaar bu sëriñ bi génnul nga songu mbàkke bari waaye borom daaru muuti tànk yemu ca dox dem ni Leclerc toogal fii balaa suba ci tisbaar sëriñ bi dana ñëw noonee la ko defe ci ëllëg si ci tisbaar ci la sëriñ bi ñëw fekk na mu fajaroo Mbakke Bari mu ñëw ànd ak mu ñëw jeewal fanaan fa bët set di ñu dem kokki ak moom fanaan fa bët set di altine ñu jóge fa ak moom ngir indi ko Louga ngir mu jël saxaar ñu dem ndar keroog ba ñu jaaree dëkk boobu ñu wax Belel Jóob waa Belel yóbbu gi ñu yóbbu sëñ bi daf leen metti ñu mer ba Leclerc euh, rapport bi mu def ci fukki fan ak juróom ci weeru août nee na waa Belel Jóob dañ noo tere seeni teen di du ngeen fi wëgg ndax mer ci amadou bamba bi ñu yobbu ñu ñew duga jele fa sahar ngir dem ndar samedi le 10 le genn faran jewal dimanche le 11 mu faran koki alterné di le 12 ci le bi dem ndar ba mu demee ndar mute téye na ko fa weer ak juróom-ñaari fan gannaaw ba ñu ko attee bu ñu ko mënee wooyee ab atte ci conseil privé ba ci juróomi fan yi sattumbar ñu teg ca fukki fan ak ñeent muy le 19 septembre ci la ñu dugal sëriñ bi saxaar di bisub alxames mu ñëw Ndakaaru nee bi muy ñëw dafa woor ba muy waaj a toog lañ ko woolu yóbbuwoon ko ci néeg bu kiimaane boobee mom serigne bi ci bopam neena guddii gogu di guddii aljuma gi ba manam muy xame ci guddii ba set di aljuma ci néeg bobé lako fanan waye guddii ga ci top ci gal yeri gi ci bato bi lako fanan muy guddii aljuma ci guddii ba set di gaawu bato bi dexi ngir yóbbu ko Gabon loolu mute bi moo ko jëf léegi nag damay ñëw ak yéen ci pàcc bi ci topp di juróom-ñetteelu pàcc bi gouverneur Louis Guillaume Moutet mi yóbboon sëñ bi Gabon moom loolu jik na ko wala déet fan la gouverneur Mouté mujj ak mujjam moom day sunu boroom xaarewu ko sawaraw ëllëg ci sawaraw ad ci sawaraw àddina wi la ko lakk kon dama leen di jox dox daje rek na ngeen ma topp ci pàcc bi ciy topp mu jóg gouverneur Mouté moom lay indi ci juróom-ñetteelu pàcc bi li leen soññ ngir ngeen abonné rek ci seen chaîne bi ndax vidéo bu ñu dugal rek ngeen mën ko dal di am maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf والقلم وما يسترون mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. gannaaw bi mu amale jongante bi mu baxo def at mu nek tuddé ko yatal bindum alquran compagnie Serigne Seck Sénégal C3S mi ngi len di yeugal ne dina amal bes bi nu jàpp ngir joxé neexal yi jagleel ko ñett ñi jitu ci jongante bi muy nyarelu ñaarelu dibeer ci wéru koor gi di tollok dimanche ñaari fan ci wéru avril 2023 ci grand théâtre bu Dakar boobule bes nak C3S mi ngi ko tuddé Serigne Makhtar Khady ragné kon lool ci yéré ak jàngale alquranul karim nekkon ku ku lool ci tollu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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما أنت بنعمة ربك بمجنود بمجنون حمدا